santaat yàlla bu baax di wax ne lii moom lu yàgg am la ci dëkk lu yàgg am la ci réew te bëri na ci réew yu am bëri na ci dëkk yu am xëy nag euh, suñu sañoon dégg nga du ci réew mi rawatina Kaolack gi nga xam ne dafa dëkk waaye soo see Touba gi nga xamante ni mooy euh, dëkk bi ñu yaakaar dégg nga xale yi nañ ko fa yaakaar na ba kilifa gu mag gi génn Touba googu nag fii dëkk bi ñu nekkee muy Touba Kaolack dafa bokk ci dëkki sëriñ bi waaw dëkk boo xam ne tey euh, sëriñ Mountakha da ko moom bokk nekk dëkk boo xam ne da koo donno waaw kon euh, Touba nag ndogal dogal dafa dem ba dogal agsi ci moom moom Touba waaye fii moom dafa bokk ci ab dëkkam boo xam ne dëkk boppam la moom moom dégg nga waajuróom baax ba Cheikh Madou Ba ci sancoon ko dégg nga tuddee ko Touba muy Touba Kaolack waaw ñi gisin nekk rek bi yëf yi amee daanaka ñoom ñoo njëkk jog jóg di manifesté woo ngir couvre-feu bi jeex Euh, bi loolu amee nag yàlla dafa sama digganteeg ndaw ñi yaakaar naa loolu ñëpp xam nañ ko ni ma mel ci ñoom ak nga yàlla boole gi ma boole ñoom ñoom it ña xam ko téyel ma ko damay wax ne man sopp ma la sa ñoom ñoo ma seen bopp moo tax bi yëf ma xam ne suñu jàmmaloog policiers yi dana euh, dana dayoo loolu moo waral ci guddi gi ma jóg taal sama oto dawalal sama bopp dégg nga di wër fu mbooleem fu xale nekkoon di manifester dégg dem ca dégg nga ñaan leen njëkk ñoom ñooy ñoom ñu ko defoon ñooy wëlbatikuwaat dindi xeer ya dindi garab ya dindi dégg nga lañ ka lañ baare woon yoon wi da nga fayaat taal yi da ñoom ñoo ko doon defal seen bopp euh, damay waxit ne day am foo xamante ni suñ fa tolloo dégg nga du du du autorité politique wala autorité administrative moo war a jóg mais autorité dégg nga bi day am dafa am solo dégg ci askan wi. taxawaay bi moo war a nekk dégg nga di leen sensibiliser di leen mobiliser dégg nga ci ak njub dégg nga ne dégg nga la ko bii fi amee Touba rek bi ma jotee ak dégg nga ministre Aly Ngouille Ndiaye dégg nga ci wàllu Papis Gaye mii dégg nga taxawaay bu rafet dégg nga maam la la ci am dégg nga ñu ci ba ñu war a mën a jóg gën ñoo mobiliser gën ñoo sensibiliser it ba nga xam ne am nañ ca war teg dégg nga jóg dugg ci xale yi ñaanteeg ñoom njëkk ñoom teranga dégg bàyyi loolu ba jeex bi ko defee di gis nañu dégg di yaakaar naa moo nekkoon meilleure solution waaye di remercier baax autorité Kaolack rawatina dégg nga police Kaolack dina sant bu jàppee yi dégg xale yi mu jàppoon yëpp ci jot waaye bàyyi waat na xale yëpp xale yëpp seen sago moo tax démb ak bëkki démb dégg benn xale génnut ñëpp dégg demaan nañ seen kër yi dégg waat ci ci yàlla ñu parce que xam nga mënoon nañu nekk ay xale yu dëgër bopp yoo xam ne suñu xasee jóg jàpp dara dégg maam mën a xale xale delluwaat seen da nga famille yëpp nekkaat ci jàmm loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax daa di baalu sëriñ bi ah, waaw Kaolack moom moo moo mel nii parce que li may wax rek dégg xamante ni dégg nga maam euh, mbëkk nañ ko dégg nga ba mu moom ak na ci taxawaay bu rafet parce que ba loolu amee jël na jël na en charge xale bi di ko a delloo ci jàmm ba la delluwaat ci ay mbokkam dégg nga ba yaakaar moom la maa garanti incha allah manifestation du fi amati lam tuba rek de nga mo fi am de nga xale tuba def nañ ko xamna naa ko Kaolack tuba ko barkelu nañ ci de nga señ bi señ bi wax na ñaan euh, genn na ñaan na ci barkelu señ bi yaaka na lolu mo de nga jeex na fi dootu fi am lolu mo ñu koy de nga garantir de nga ma population diko garantir état diko garantir ali Aliou ñay Ndiaye garanti xalif bi li xalif bi war xalif mom mom tuba lam ñaan tuba te nit ñi dañ ko bëgg de nga bëgg ko señ seen bopp donte sax de da leen yilif mais xam nga wax ne euh ma lay mom ya may mom moko ko waaw de nga señ bi wax ne ma leen di mom ñun ñu ne ko mbacke yañu mom mo gëna wër moo tax dégg nga occasion la woon ci xale yi démb ci ajuma ji ñëpp xaar ko mu julli ba génn ñëpp taxaw ne ko mbàkke dégg nga jégal ñu mbàkke jégal ñu daw topp ko dégg nga ba daar mi nam nga sëñ bi de xam naa ci yërmande moom it dégg nga dana jégal ñëpp dégg nga ci kenn dara na moom sa musa topp kenn dara dégg nga waaye daal na xam ne loolu nekk Touba Mbàkke moo nekk fii Touba Kaolack waaw Mbàkke nañu jégal moom it ko bëggee dégg nga lañ koy defee réew mi doon baax jërëjëf Mbacke